sama gaay waa dama ni sama grand gi noonu tabarkalla masàllaa nee naa la yow jam nee naa la tabarkalla ku la xool guddi waaw bu la gisee bëtti xolam set maa la wax loolu waaye dama ni waaw kuy naan njarum soow mu lu tëmbal galaas waaw nee naa la wu rombee woo xamante ni ci mbedd lan ko teg danaan ko pulux maa la wax loolu ah te xam nga boo xoolee ndeysaan waaw ah, jambaar nga jambaar la ci xarnu bi ndax bu la neexoon nga jaay leneen bu ko neexoon jaay leneen waaye wax dëgg yàlla yaa ñuy sagal goos duñu sagal droite la ilaha illallah xam nga lii yaa ko fi def xoolal boobu ba léegi dara ñaawul ticket bi daggagul ticket bi daggagul rek ay ticket bi daggagul rek daf leen ndax rek waaw waaw ama yéen samay waay ngeen dégg nga lii Wow. du ma jug ci am fu may jaar ak yéen ndax damay nim ngeen waaw <laughs> xaar ma am lu ma def ak yéen da yaakaar naa ne ajo ci la hmm? Hmm? waaw waaw ah, dañoo amul niveau wala dañoo ah, ah waaye commencé non waaye ñoo ñëw. sunu niveau moo. mais garaaw amul ah samay waay ngeen de. ma ne. waaw. te ko dërëj waaw waaw de ko dërëj. de ko dërëj. de ko dërëj. sa waay bay fa la rasta la bëgg. de ko dërëj. waaw waaw. raja kinda raja kinda raja kinda. tàgge gi tàgge gi kinda. raja gi gin gin gin. ma ne. sonde du kër Mariam. waaw ñaari nga du góor. waaw waaw ko taj ci bàyyi ko mu lang. taj ci bàyyi ko mu ay bu ko tànc bàyyi ko mu buubu ay bu ko tànc bàyyi ko mu lang ay bu ko tànc bàyyi ko mu lang ay bu ko tànc bàyyi ko mu lang ay bu ko tànc kenn kenn ay bu ko tànc kenn kenn ay bu ko tànc kenn kenn ay bu ko tànc kenn kenn ay bu ko tànc kenn kenn ay bu ko tànc kenn kenn ay bu ko tànc kenn kenn paras tikitin rakekeke ay barke yonent bi baataree ngi nii xam nga ni bu la neexoon nga jox ma 1000 francs yoo xam daal la waaye yii nga ma jox mun naa reen di seg waaye dama ni ko ko ko ko kore ma waaw yàlla dafa dogal waaw Sénégal ñu ni mayo yi ci sawaay mi leen koy defaree te xam nga ni mayo bii mayo Sénégal moo nekk nii dañ may jënd di ko jaayaat mais damay jaay ay qualité bu baax ah yéen mais yow du fii lañ koy defee damay jënd di ko jaay attends <laughs> ba tey daanoo équipe national bu Sénégal bi maillot yi muy footballé maillot yi muy footballé nga bu ñu jëlee coupe tey yaa leen jaay maillot yi ndax ndax bi am étoile bi la yor bii am étoile bi la yor te bii Sadio moom la soloon boo xoolee ñax baa ngi may xëyee dëgg la ndeysaan xam bu la neexoon nga jaay nga jaay nga jaay ay ay ngambal waaw ngambal bu la neexoon nga jaay daa mel te nga jeexal nag bu la neexoon nga jaay ay pacal forox wala mbabal yo xamne 7 sept mètres lay doon waye nak gor yalla nga gor yalla nga ku xol sa bakan bi xamne wax dëgg yalla ndro wala barada daira waye nak ah, jambar nga waaw ñun nak dañ lay bëgge waaw waaw pak yalla xam nga tay li ci ar mhm. waaw moy moy ni nga lu tara tara xolum toroxaloon te xam nga ni waaw ku ko def ku ko def ku ko wax la bëgg wallaahi wallaahi dama ni la etelu du ñaari tali waye suppu kanja du suppu kanja dëkk king mané ku am tey yéen taat ma xëy leen lëwal ngeen naan après ngeen continuer yoon bi naa ne mënumaa jël temps bi mais da ngeen a waroon toog fii ma xëy leen lëwal ngeen continuer yoon bi. fii fii yaa yaa waawa. xam nga defoon indien indien yu nekk fii dañoo am gëntalu te ñun ñoo war a <laughs> tëgg xew yaatal yëf yi waaw. ñun la yàlla dogal képp bu la neexoon nga doon almaani. waaw waaw. wala te yow xam nga ni ñu def. Mhm. da ngay bàyyi ñu dugg. waaw buñ defee retour fekk la fi mu gën a neex. moo tax ma ni décoté rek décoté rek décoté rek. sa gudd gudd waay waay bu leen gars yi rëcc ndax li ngeen war a def fee tamit boo leen defee lépp fii. day ëpp wax nga dëgg. waaw waaye yàlla na leen defal jàmm kontaan naa ci yéen. kilo yi yow la. non yi yow xoolal bu la neexoon sax bu la neexoon bii nga teg ko ci. waaye xam nga at na amul solo. da ba ñëwaat. ah ndax comme soqeekoo gu ma. soqeekoo da ñëw ndax. waa ji daa yeggul te soqeekoo soqeekoo yeggul. yéen ci kanam yéen. xam nga sooy yéen kon lii mooy métier bi quoi. waaw lii mooy sunu liggéey quoi. lii mooy sunu liggéey. lii yor tomo bi du kii bi. waaw gën a dox quoi. te loolu xaal loolu. lii bi dañuy dem lii moom xalaat yi dama ko topp xalaat yi xool gars yi. barkeel barkeel barkeel oto yëpp foofu lañ jëm. oto yëpp barkeel non waaw bàyyi ko xalaat ma laal ci rek. bu laalee rek joxe xalaat pare ma xool. wala suukaru ma ko suukaru ma ko suukaru ma ko xaaral ma jël suukar ah. suukar laa koy. waaw xaaral ma jël suukar bisimilah xaaral ma jël suukar. 走快 duñu laal diine. booy fa wala kay ñun moom. ça va ñun moom yaay diine booy fa. waaw. kat ba léegi maa ngi toog sa ginnaaw ñu ngi expliqué rek. xalaas dafa wuus. waaw. ba pare moom ah loxo yi loxo yi loxo yi bii dëgg xam nga lan lay def loxo yi ñu pogg fii man man de lu ni jëm nga te dofoo dina jàpp la. waaw xamoo lu xamal luñ la waawoon. waaw may ji baatare na. maa ngi maa la fàtte sax man wax nga dëgg de gaal yi dañuy séddale. ah waaw. léegi nii. waaw. xam nga wàllu bokk ak buum gi. buum gi si damay gaañ mbagg mu. waaw. doxam taatu jàmbur loo ci tëgg dee koy fayee. Hmm. taatu jàmbur loo ci tëgg dee fayee léegi. tey ah. ko lii nag. wax si sedd lii la yam. lii dinaa ko jël mel ni mbaam. yow ñu waaye yow nga ñu taxaw nga taxaw nga teg ma keppatu ñu teg ma keppatu waa ji jox ma ma jox la waa ji jox la ba muy ñeenti billets yu mag nga bëgg maa jox lu ñàkk fulal yi xanaa xamoo ne dama dama dama ëmbal waaw waaw da nga nangu naa yow da nga ëmbal booy bu juddoo waruma jënd couche ésic basique ésic basique waay xam nga ngembal faro xewi na waaw couche lay dajalee nii ésic basique waaw ah waaw wax nga dëgg di wax nga dëgg di nga mbal foog amatul ay nga wax aussi basi ah waaw waaw dëgg la loolu dëgg yow wax dëgg yàlla fi nii nii war ngaa dajale. waaw ndax ah, boo amee doom moom xam ah, nga bu njëkk ba nit ñi dina ut ay perméable si ay ay ay Lagos. waaw xottitu Lagos ñëw xotti ko dagg. am si sagar daal di leen perméable yooyu sax mu ànd ak sa yooyu nga mbal kii yi ñuy naan takk nii rek. yooyu amatul. amul li ma la mën a xamal nag mooy. lii du ko laal tey du ma ko laal ëllëg. pour mu wax la benn il bi da nga koy laal pour sotti bi li xam première sotti la première sotti doo ko lekk da nga ci fa rek deuxième sotti bu sotti bi neexaatee bay waa ma dimbali la ko koy laal bi la bu ma ko namee laal def naa doon ripaas wala ñu deewoo fii ragal ba ñu ma ci dara teyal sa xaalis ragalu ma ci dara xoolal ama yoon nag dañ naan xeeb ñàkk sii buur ah waaw may doo laalati dara duma laal dara doo laal dara ba fekkee duma laal dara yàlla naa doon ariko xam nga yow doo laal dara

cas cas jan jan tama ngeen yóbboon tama ji ngeen yóbboon. moom la yóbbu tama ji ngeen doon nokkase. bii la. tama ji demul loolu kaajo nañ ba am ci fukki junne amoon noppil yow yéen a ma bett. yéen pour ma lu nekk ngeen xuloo ba nga jënd si sama perruque bi naka te yéen a jël sama tama maam bi dem da ngeen di woyaale yéen ñii yéen a yàq deru géwél yi nag yéen ki ngeen di tagg xamoo leen ay maamam xamoo leen ay bàjjan xamoo leen daraam ngeen ne da ngeen dem woyaane ji man duma géwél mais am na ay xaritu géwél Habib la am géwél la Khalifa la am géwél la xam nga waaw yow du da ngay ni jaay mag yi bulleeku rek daraw ngeen ba bulleeku wax kenn xamul fa kenn xamul fa sa taabi féete yéen ñaañi da ngeen ngeen ma rey ci biir kër gi de xam nga pataas mbir yi dodul ah. bu ngeen xeex ngeen nokku jëppit ni nañu falaay man su ma xamul sama tamaji ndanga tamaji lu ma su ma weer a tamaji da ne ko doñet yow cas su ma weer sa loxo càmmoñ bu weer nga bii nga xamante ni li ko rek tamit jëm eh, eh, andi andi ana kii bi ana ana ana ana li ngeen ko jóg ana ana sédd ana sédd mu ngi foofu ana sédd indi xaalis bi ana sédd génne te nee na nee na tama ji day seddu galañ bi mu koy tegee day seddu andi léppay seddu andi andi xaalis na gaaw leneen mu ngi foofu ci boxotaan bi yow génn lii ngay yàlla yàlla xi nii man dama yaakaar ci li ngeen nekk dama cee nekk du lii ëpp na lii ëpp na lii na dugalal di tagal fi waaw tagal fi tagal fi ana li ana ana ana ana ana ana mocc bi mu ngi ci biir na dugal li des sànq gars yi amoon ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen ñuy bokk si tabax bi ñu wut ñeneen ñu jox quoi loolu moo tax li des loolu moo tax ñu wut parce que loolu dong la sas dinaa la pini de sas dinaa la pini dinaa la maa ngi lay dinaa la pini dinaa la ñuus de waaw baax na rek lii nee naa la lii du caaxaan lii du caaxaan bés boo ko bënnee

rien.